jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen a ànd ak CCB ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a koy ànd ak ñun di leen wax ngeen gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte lekk mooy sunu yitte CCB du leen ni kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci ñuy gërëm bu baax kilifay diine yi kilifay aada yi sëriñu daara yi ak ñi nga xam ne ñooy aar daara waaye di ndokkeel waa Safinatoul Amaan bu baax a baax di ndokkeel sunu mbokk yi nga xamante ni ay takk der lañ ñu leen di gërëm bu baax a baax di wax ni réew mi bu ñoŋee ñoom la waaye duñu fàtte mukk suñu mbokki bopp ya nga xamante ni ña nga ca réew góor ñi ak jigéen ñi lépp lu leen yàlla jox foofa ñu indi ko seen réew ngir bëgg mu jag ñu leen di nuyu bu baax a baax te di leen ndokkeel naka noonu baykat yi ak sàmmkat yi ñu wax leen nañ booloo nekk benn te jàppalante moo gën xeex bi ak xuloo bi ñu ngi leen koy wax bu baax a baax di soññaat gouvernement bi kenn ku nekk la mu nekk di sa liggéey na ko ca fekk mu daal di ko say jàppale sooy bu nag émission bu mag bi di seen xalaat ni ñu leen ko waxee woon léeg-léeg dañuy jox askan wi kàddu léeg-léeg ñu dalal benn xam-xam léeg-léeg ñu ñëw fii toog li nga xamante ni moo xew ñu wax ca lañu sax xam te teg ko ci dëgg amul loo Euh, lépp loo xamante ni commentaire ngeen ko rek ànd nañ ci ndax ki lay seetaan rek moo mën a commentaire su ànd ak yow ni la c'est bon ànd yow su àndut ak yow ni la ànduma ak yow dara xamoo ko ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax te di wax ni nañ gën a abonné bu baax a baax a baax son bu nag tey jii liñ leen andil askan wi lañ jox kàddu ñu laaj leen mbirum parti li mu jaas ak nam mujjee nam tàmbalee lan moo si seen xalaat kenn ku nekk andi na si ay kàddoom ñoom askan wi kenn ku nekk wax na nam ko gisee en tout cas daal euh, li nga ni man maa ngi ko say dolli léegi mooy Khalifa Sall Euh, dani woon euh, day yaatal dëkk bi bi mu doonee maire bi dani woon bu ngeen ñu falee dañuy yëkkati cantine yi bu ngeen ñu falee dañuy yëkkati cantine yi waaye xam na njariñul cantine daal wax dëgg yàlla ba ñuy bërunglu cantine ba cantine yi bu ñu koy bërënglu di dugg si biir bu fekkoon yàlla dogal na ñu jëlee fa cantine yi kon musiba dana daal di am waaye nag ñoo yay daw ndax buñ dawutoon musiba mën na leen a dal te dañoo am si ñoom yaakaar ëllëg kon nañ daw ba raw ndax ëllëg la ñuy yaakaar si ñoom ñu daal di koy am askan wi waxtaan nañ waxtaan wi yaatu mbokk yi kaddu ay Ousmane kaddu Ousmane Sonko Barthélémy Dias dem bi ak dikk bi Ndiaga Diouf ak euh, yoon lim si dogal ak euh, mairie yi euh, wote yi di ñëw loolu lépp askan wi kenn ku nekk indi na ci yi bu Diop ginnaaw bañ demee jee ànd ji ak seen sponsor bu mag bii nga xamante ni mooy bitigu solution jàkkaarloo ak wàllu fajri yàggatul dara foofa ngeen jàkkaarloo ak ñun suñu invité foofu la ñuy ñëw toog ñuy wax di leen jox ñuy wax di ñuy tontu si kàttanu suñu borom kon yéen ñii seetaan CCB te bokk ci préparé leen incha allahu rabbi ak invité yi nga xamante ni dañ leen di woon ñëw toog ak waxtaan ak ñun foofu si bitigu solution muy TVSA muy CCB muy bitigu solution kon ñeen ñaan bu baax a baax te ngeen jàpp ci euh, son bu jóg bitigu solution ñu dem publicité te ñëw mbokk yi ànd ak askan wi jërë ngeen jëf. mbokk yi jaaxle jeex na solution juddu na Alaaji Sanjoogu Mbeng Sohaybu Jóob indil leen butik solution lan la boutique solution di liggéey lépp lu jëm ci garab yi ñu leen di bëgg a limal am na fii ci boutique solution efficace lool te bari njariñ te lépp ci suñu gàncax gi lañ ko liggéeyee déglul ma limal la éjaculation précoce góor gi gaaw a yëg sa bopp ci wàllum sëy ndoxum siti muy dem bay yàq sa yaram amee hémorroïde bu lay tee toog ana jigéen ñi bëgg fes ak yokk seeni ween ay produits yu baax te naturel lépp suñu gàncax gii lañ ko defaree seen boutique solution mi ngi fii ca ndakaar Liberté 6 jàkkaarloog wal fajiri liggéey bu am solo ak garab yu baax yi boutique solution di jaay fii ci biir réew mi tax na ba waa bitim réew ñëw dolleeku ci liggéey bi bu dee ca dubaay marok ak ca Italie soxna ummi ak Serigne Ibrahima ña nga fa ci plus 39 351 170 55 19 ngeen jokkook ak soxna ummi bu dee fële ca New York soxna Seynabou Gueye sénégalais sister ngeen mën a ba jokkoo moom ci plus 17 18 52 61 418 bu dee fële ca France ngeen mën a jokkoo ak soxna Mariane ci plus 33 06 09 16 97 11 bu dee fële ca Espagne ngeen fekk fa Serigne Basirou Samb ak Serigne Modou Wilane ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci plus 34 63 11 31 773 bu dee ca Gambie Gambie ngeen fekk fa Yaya Bangoura ci plus 220 364 99 12 bu dee fii ci Sénégal ngeen mën a jokkoo ak boutique solution ci 78 426 66 77 mbokk yi ak seen boutique solution yónnee sa xaalis te jotatoo say garab jeex na yónnee sa xaalis kenn dootu la jël téléphone jeex na feebar bëgg a faju mu tëla ticc jeex na ak ñetti médicament yi ñu leen limal góor gu néew kàttan ci wàllu sëy hémorroïde bu tëwër ndoxum siti mu tëwër bu leen ko fàtte nag boutique bi xoojul jàmbul xaar xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dëgg-dëgg daal fii rek ci boutique solution ngeen di wéree ak daane lu mu mën a néew néew néew war tax moom mu noppi rek ndax daane néew na kat daa war a nangu ne moom moo rey non non kon ki nanguwul nag waaw mu def appel bañ seetal ko wecc résistance bi nag defe naa ne lii rek taxut affaire bët lu ñu taxut daa tombé rek ndax Sénégal li fi xew lépp des polices yeeg recette yeeg ak li fi jot amal ak yëpp daal am na loo xam ne ni lii rek moo koy saafara ginnaaw moom ki jiitu lii la bëgg kay ah boo nooy lay moom mu jaar si kaw jàll dëgëral rek ba nga wane sa bopp def naa loolu moo tax mais kenn wóotewul rey kenn wóotewul xeex ak xuloo wàcc ci mbedd yi dox li ñuy dox résistance mooy loolu rek li nga moom te joxuñu la ko nga laaj ko foqate ko. maaleykum CCB maa leen nuyu di leen ziar mbooleem ñu koy teewlu. di leen di leen kontaane waa di wax ne li xew rek ci affaire Barthélemy Dias bi muy convocation bi euh, te muy niróog nag ne dafa politique def ci làqatu euh, parce que xam ne ne ku nekk xam ne ne ñetti pouvoir yi nga war a xam ne ñoo war a yor réew ñu war a leen séparer te pouvoir judiciaire yi am ci solo parce que pouvoir judiciaire ku nekk moo lay joxaat sa place bu ñuy wax sookul ci réew pouvoir judiciaire la mooy justice bu baaxee ci réew réew ma baax bu nërmeeloo nag réew ma nërmeeloo bu ñu demee nag ba nga xam ne tey euh, pouvoir judiciaire bi mooy justice bi dafa mel ni rek liñ ko mën a waxee dañuy jébbalu ci pouvoir judi pouvoir exécutif ñu leen di defloo loolu réew ma war nañoo mën a tiit bon li xew nag démb ci Barthélemy Dias ñëpp xam nañ ne politique bu bëri làqatu na ci euh, parce que nit koo xam ne dañ ko attaqué ci meeram fekk ko ci mairie bi euh, wax dëgg yàlla booba léegi àtte bi lu mat fukki at wala lu ko jege ñu koy renvoyé di ko renvoyé mu mel ni dañ doon xaar rek bis bu rafet mooy dañ doon xaar ba Barthélemy Dias déclaré candidaturam à la mairie de Dakar parce que xam nañ ne depuis mois de mars wala mais la déclaré woon na day nekk candidat euh, bon mais nag li ci xaw a lëndëm euh, lëndëm xel tamit bokk na ci euh, depuis boobu ba léegi dafa mel ni projet bi ñaar rek la concerné muy Barthélémy Dias ak famille Ndiaga Diouf dafa mel ni ñoom rek la ñuy woo te ku nekk xam na ne Ndiaga Diouf en tant que nervi bi muy ñëw yal na ko yàlla yërëm mais bu muy ñëw am na ñeneen ñu mu àndaloon léegi ñooñu lan moo tax kenn du leen woo. ci àtte bi ñaareel bi tamit euh, nervi yi dafa am ñu leen recruter woon ñu yoroon oto yi benn parti politique fii ci Sénégal jóge woon ci benn chaise parti politique fii ci Sénégal léegi waa parti boobu noonu li tax kenn du leen woo parce que nervi yi dañ leen recruter di leen recruter li tax duñ leen woo kon affaire bi boo ko xoolee ba ci biir da ngay gis ne wax dëgg fa yàlla. Euh, justice bi dafa mel ni respecté wul boppam respecté wul sénégalais yi tamit parce que bu respecté woon sénégalais yi wala mu respecté bokkam du dem nag jàpp boppam takk buum ci baatam jébbal ko exécutif bi exécutif bi di ko defloo ak di ko dindiloo waaw loolu nag moom sénégalais yi duñ ko nangu parce que réew mi ñun ñoo ko moom réew mi benn parti politique moomu ko benn organe moomu ko benn pouvoir ak nu pouvoir ba tudd que ça judiciaire la wala législatif la wala boog parlementaire wala exécutif réew mi peuple bi ñoo ko moom kon pouvoir yooyu noonu bu ñu leen fi tegee ñoom dañ fi war a nekkal yoon te nekkal fi yoon moo nekkal fi peuple bi waaw mais nag bu ñu demee bëggee takk seen bopp buum dem jébbal ko exécutif ñoom bu fekkee na nangu nañ ko tamit franchement population bi duñ ko nangu. Sénégal dañoo war di waxante dëgg. parce que tey jii nii woo gi nga xam si ne woo nañ ko Barthélémy Dias euh, li nga xam si ne moom moo weesu fan yi jëru ko woon ak ni niñ gomfalee woote bi appel euh, euh, résistance ba tax tey jii nii foo tourné si mbeddi Ndakaar yu xompo yi ña nga fa wàcce ay policier dëkk bi pété déwu am ñoo xam si ne tey jii nii dañu waroon a dem tribunal tey lañ fa amoon rendez pour lijjanti li ñuy lijjanti danañ ne kat fitna dafa war a am tey moo tax du ma dem ñun amuñu dara loo xamee ne moom la ñuy kiyee Barthélemy Dias man tey bu fekkoon ni damay watee Ndakaaru man moom laay wateel yàlla xam na ko pour que mu gañee maire bu Ndakaaru waaye nag lépp lu si mën di am dañ ko war di teg si dëgg li ñu doon wax fan yii nii yëpp dara lañ ci tigul woon si dëgg di woote appel à la résistance parce que tey jii nii bu ñu waxantee li fi nekk li Dias moom lañu ñu àtte daan ka liñ koy daan dëkkuwul si lañ koy daan mu def appel ñu war ko woowaat pour nungul ko appelam boobu pour attewaat ko ñu ne kon woowaat nañ ma Sénégal yi ñëw leen ñu résister ngeen wàcc ci mbedd yi nàngam nangam après ñu teg ko fan ñu teg ko fan dinañ ko atte daan ko ñaari at si mois yi lay tëdd leneen li suuf si la alamaan ka lañ koy alamaan mu ne d'accord si yéen kan ngeen mës a gis ci kaw suuf mu xëy nit ñu di ko daan euh, ay ay six yu kenn xamul ñaata nit ñoo tëdd ci kaso yoo xam si ni fukki at ñii vingt ans ñii perpétuité te rey nit moo leen fa bàyyi kon bu fekkee ni euh, euh, dañ ko dañ ko àtte def ko daan bu diis bu bu bu woyof boobu noonu ça veut ko mooy kon moom li muy wax li gars yi wax naan ku la nar a rey nga rey ko euh, légitime naa nangam ak nangam affaire yooyu noonu yooyu yëpp bu ci laxasuutoon après dossier bi xaw xawuta lëndëm euh, am lu ci xaw a kii kon bu boobaa Barthélémy Dias ci kaso bi lay dee kon kenn du ko tëj ay six mois pare bàyyi ko muy dem di joxe ay soxlaam kon Sénégalais yi li ñuy def nañ ka xam am na ñu bari nag ñoo xam si ne ñu ngi riirandoo di kër kër yi di tëll tëll di rajax rajax di woote te xamuñu nu mu demee mbir bala nga caa bala nga caa sóobu dëgg dëgg dëgg dëgg di ci engagé wu gëstul xool làmbatu jéem a informé ba xam dëgg dëgg dëgg mbir moom nan la demee. si wàllu Barthélemy Dias bi comme li ma dégg nga euh, wax ko ci say ci biir ni mën nañoo dem ñu àttewaat ko mën nañoo dem ñu tëj ko mën nañoo dem baax nangam Barthélemy jaas sañ Cheikh xam na bu baax ka ni euh, li nga xam si ne moom lañ ko daanoon ñaari at six mois sur six mois yi mu tëdd ko ñu alamaan ko siis bi du ci yokk dara moom wàññi ko la bëgg moo tax mu def appel ñu def ko nool ni ko def sañ njëg a juf kenn toppatu la ci dara defoo dara moom loolu moo taxoon mu def appel doon na xalaat sax que ni bu demee gars yi def ko lu gën a pire wala ñu daan ko daan yu gën a gis liñ ko daanoon loolu moom xam na ko ni day ñibbiwaat këram militant yi xëy na am na ñoom xamuñu ko parce que niñ leen ni niñ leen gomfaleel woote bi niñ leen ko interpréter bokkut ak li nga xam si noonu la demee mais leader politique yi tamit ñoom tamit xam nañ ka te fi mu toll nii buñ dee wax tamit nii na ñëpp génn leader politique yi génn jaar fii dossier bi euh, dix la mais bi bu demee dix ans lan yóbbu dix ans suñ seex Barthélemy Dias lañ daan dëkkooru ci mu def appel appel yi di am ay renvoyé parce que ñi ko war a taxawandal atte ñëwuñu ñu koy renvoyé di ko renvoyé moo tax dossier bi àgg dix ans mais nag Sénégal bi nga xam si ne toog na ñu ne ko dossier Barthélemy Dias dix ans la fukki at la nangam nangam xamul nu mu demee day jàpp ne rek état yi ñooy law lawee dossier bi di di ko xëcc di ko yóbbu yëmale ko dix ans fekk na booba ci ki ñuy atte ci moo waral mu àgg mu mat dix ans. ay man dama jàpp na ka wéy sa moom. nu ko politiciens yi bëgg a defee léegi dafa ëpp ndax yow mënoo nekk di politique saa yi problème amee nga ne nit ñi génn leen kaay wéyu si yoon dawalal sa oto ndànk nga génn dem wéyu ji si jàmm boo demee nag buñ la tegee luñ la woote teg nit ñi fekk si la mais yow ñu woo la wéyu jógoo di woote ne ñëw leen taxaw xeex la ma ñëw leen taxaw xeex la ma léegi fekkee Sénégal moom képp ku yoon woo dañu war a taxaw xeex war a taxaw jàkkaarloog yow léegi kon yoon lan lay jëriñati bu ëllëgee ñu nekk ci pouvoir bi nii ñooy nekkaat opposition ñoom la ñu tuumaalaat ñoom lañ askan wi di taxawaat ànd ak ñoom na tooñuñ comme Sénégal moom boo nekk opposition doo tooñ man loolu laa gis ci jukkoo Sénégal boo nekk opposition doo juum doo def ëral doo def nàngam léegi même ñi làqu ci pouvoir bi nii def lu leen neex nii tey di tooñ di def lu leen neex ñi bàyyi leen ci biir bu ëllëgee bu keneen ñëwatoon tamit bëggoon ko jël engagement ci ñoom régler lañ defoon bu waatam askan wi dañuy taxawaa ne dañ leen tooñ dañ leen jaay doole dañ leen jaay doole léegi nag lay dëgg mooy képp ku nga xam ne nii dangaa def luñ la warta def bu ñu la wooyee demal nga wéyjul sa bopp te bàyyi fi askan wi bañ a sànq doomu jàmbur bañ a sànq askan wu jàmbur man loolu laa gëm loolu laa xam waaye politiciens Sénégal yi du ma leen gisee nii rey nit ak naan si ndox mi leen yemale ndax xam nañ ne ku woote ay mbooloo ñu génn te ay ndaw nekk fa ay ndaw yu sabar ah, loolu mooy ñëw leen ñu xeex ñëw leen rey seen war nañu bàyyi loolu nag ndax xewet bi moom doxut yàgg nañ fi woolu opposition mu dem ñibbi si jàmm def lu muy def ñibbiwaat si jàmm coow du am nit deewut bal tàkkut grenade lakkut dara xewut waaye lu ma gis nii jëmul kër système bi moom nañ ko changé système bi doxul. hôpital yi ak morgue yi kon yaakaar naa ne tey jii buñ nee ba maanaam yoon di la topp. la nga mën a def da ngaa war a góorgóorlu fexe bañ seetal rek bu fekkente da ngaa bëgg a laaj réew mi ëllëg wala nga laaj maire yi Dakaaru da war a fexe bañ seetal waaye xët-xët yii ndax ñu ko ci jàppale naan ko bul wuy jéeg bul def yooyu yéen ñëpp tey jii ah, du loo xam ne nii luy dalal am réew ba luy am réew tàngata tax ndax bu fekkee ne kay am na problème ak cas du cher ñu téye passeport am yow ñu war laa atte atte woon la ba daan la ba àllamaan la bu fekkee ne da nga ñaan d'appel li nga war a def mooy boo demee da a wuy ji rek buñ la waxee ne lii day ah àlla maanaam ne ba daanoon lii lii yaa ñaanoon d'appel lii ñu lay fayu ndax danga ko fay wala doo ko fay soo dee fay nga ne danaa fay soo fayul nga ne fayu ma boobu ko defee yoon xam ne mi defante yow waaye xat-xat génn leen dañ maa bëgg a likkite nangam génn ay manifeste am ca ah xam nga ne démb liñ def ay de politique yoo xam ne maanaam seen kéemtalaay kàttan daw nañ ko nga Malick Gakou jël bi mu daanu démb fii ci buntu wata bi xam nga ne loolu jëru ko ci moom ndax tey jii bu fekkente ne tey jii Ousmane Sonko mi ko doon jàppale bu fekkente ne amoon na at ci premier vague bi deuxième vague amatuñ amuñu ci at déception lañ ci am ci yooyu yëpp. sa kër sax boo fi sàcc duggee nga rey ko gis ne sàcc la nga rey ko yoon dafa def ñu atte la atte bi attee nañ ko bu tëj eh, Barthélémy Dias bi tëddan na lim tëdd ñoon bàyyeeko ko ne ko vingt cinq million nga war a fay ak la tëddën moom moo def appel bi Papa Ndiaga Diouf maa ko déglu bim bin koy def appel bi awokaay Barthélémy Dias nga fa booba jàppagum datu élection élection yi sax jàppagun ko bay defi dat ba kii doon candidat sa waay nan wax dëgg gis nga opposition bi ay Ousmane Sonko ki Barthélémy Dias li nekkee ci dëkk bi du dëgg du yoon ñoom donc newuñ ci ay opposition ay Thierno Alassane Sall nga fi ay Abdou Mbaye waa PDS ñeeg ñëpp a ngi fi di di démocrate di wax li ni war a wax ak leneen ak leneen ñu bëgg instauré nit ñi bu waxee ñu na ay guerrier di wàcce doomi jàmbur ñu Barthélémy Dias day yóbbu doomam est ce que coow li li ñuy génn lépp bi ay doomi jàmbur doon wàcce oto bi Ndiaga Diouf moomee nag doomi jàmbur la te Barthélémy damaa ñaawlu taxawaayam mënoo jàpp nit ki am moom jafe-jafe mu génn àddina nga nekk biir suuf nga koy xas naa néer wi ngaa nag nangam ak nangam loolu dafa ñaaw dégg nga Macky Sall nag am réew lañ ko dénk dénkuñu koy parti politique bu waree dépendre réew mi day dem bitim réew Macky Sall même bu tëddan pale gee ñii bu caaxaan jeexe amuñu moyen àgg fa mu ne ci biir pale baa mu ne feneen a ci yem réew mi kenn moomu ko ku ci wàcc yoon ay institution la fi Abdoulaye Wade di ko incarné Senghor Abdou Diouf ba ci président Macky Sall keneen ku ñëw moom ngay dépendre justice am na fi ba bëgg dee dafa am ñooñ bu leen arrangé maa ngi dégg tey ñuy ñuy tàgg ki nekk euh, cour suprême bi nekk ndar ndax wali dana seen candidat gars yi nañ teg mbir mi ci yoon bañ a parparloo réew mi moom bu ngeen ko waxee bu ngeen ko ay honnêteté bu mag fi ne ak ay nit yoo xamante ne bii lu leen arrangé rek la ñuy wax kilifa diine rek li war def du def nit ku yuuxu ñu jóg di ca wax nit ñeneen ñi liñ war a wax wax nan ko ku ne dem nga fa kilifa yi wax ak ñoom li xanaa ñoom bu nu wengaloo rek la ñuy doon dem ci kilifa yi nii kenn ka mujj sëriñ si muy ci pouvoir beeg opposition bee ci ku sëbat xong rek nga bëgg a utiliser sëriñ si sëriñ si diine lan fi nekkal ku leen gëm gëm leen ku leen gëmul nga dem toog ñi nga xam ni si nag dañoo ànd ak moom man ñooñu du ma def lu rafetlu liñ def ndax maanaam sa mbokk même bu dul sa mbokk koo xam dong tey buñ ko bëggee jaay doole nga mën ci dara da nga ko wall parce que liy problème bi mooy affaire moo war a jeex yow yor sa ngànnaay ñu fay la vingt cinq mille ngay dem di attaqué ji nit boo fa demee loo fa góobee na ko gar bu ko defee nag nit ñi génn di wax te fi mu toll nii maanaam bu xoolee woon bañ gaañ ko tamit du mujj fenn ni mu def nii noon la ñi koy jàppale tamit noon la ndax su fekkente ne tey jii exemple laa lay jox tey suñu xoolee nii par benn par benn lañ leen di def mbooloo mooy doole ndax fi mu doon nii mbooloo bi doo nga leen mën a jig waaye fi mu doon nii suñ benn benn ñoom ñëpp la ñuy faagaagal parce que nguur gi fi nekk ni yow bu fekkee ne da ngaa ne da ngaa ne jiitim réew te yow képp ku la opposé nga bëgg koo sàkkal pexe loolu mënta ne gis nga mbir moom mën a xew maanaam wujje da caa baax wujje mooy tax la nga doon def nga bako te nguur dafa war a nangoo ki dafa war a nangoo critique gis nga ki lay critiquer moo lay dimbale ki lay ci ngay xamee lu dox lu doxut mais bu fekkee dangaa bëgg jàppe réew mi buur ak bunni man li ma bëgg mooy lu ma wax ñëpp ne waaw xanaa yàlla mi bind nit ñi sax topp nit ñi ci loolu yàllaa ngi ni moo bind nit ñi am na ñoo xam daf leen def leen nit ñu lànk te bu ko bu leen neexoon bu ko neexoon mu rey leen ci saasi mais rey leen saasi leen bàyyi ñuy doxee seen i soxla mais yow nga nekk simple doomu aadama niñ nit ñi noonu lañ la bindee liy metti nit ñi ñu moo lay met li fiy jële nit ñi ñenn ñi li leen fi jële moo la fiy jële li leen fi teg moo la fi teg place bi nga jël nii ay nit a ko jëloon jóg nga toog nga bëgg a nekk ñëpp mën nañu ànd loolu dafa mën a nekk loolu mënut a nekk inacceptable xel mu rafet sax nanguwu mbir mi day Baye Assane li ma ci xalaat mooy parce que li ma dégg mooy presque mat na dix ans fukki at boobaak léegi waaw nga bàyyi nag euh, lu mel noonu la mat dix ans fukki at yu mat sëkk te soog a ñëw bugga a souligner waat affaire boobu te xam nañ instant bi ñu ngi ci xawma ay affaire u élection lañ jëm xawma yu kii yooyu affaire maire yooyu ñu bëgg ko ci kii daal day xaw a am lu mu nuru waaw man daal loolu laa gis ba pare daal xam naa ne Sénégal moom vraiment bàyyi assan yàlla yàlla jàppale rek mais réew la moo xam ne doon naqare lijjanti lay doon parce que benn suñ président boobu loolu nga ci wax noonu vraiment man seetlu naa ci loolu heure bu dara amee mu daw génn réew mi dem yoonam tay la réew mi ba affaire yi kii mu del siwaat ni mu mu xiral loolu tamit loolu baaxul quoi waaw te ñi nga xamante ne tamit ñooy diine yi bàyyi ba yow euh, ba asan nañuy teel a wax buñ bàyyi ba mbir ni këtt joon wala ba jaan dem ko topp ci ba di dóor nañuy teel a wax ci mel nii parce que léegi comme mbooloo dafa topp seen ginnaaw te ñoom kuñ joxoñ mbooloo mi jëmba nañuy teel a joxoñ di wax di waxal ñi jiite réew mi comme na alaaji Abdou Aziz daan def di wax dëgg président bi parce que tamit euh, waxuñu ko dëgg ah dañ ko seetaan rek bay bayal ko ci li mu nekk mu bëgg a yor réew mi nekk ci li ko neex am réew nag du du loo xamante danga comme ay affaire ndoonoog yooyu président la booy réew boo ko mënee da nga yor ba mënatul nga bàyyi ni fii daa mën a yem ànd man ak tële ñoo ànd mais vraiment Sénégal metti na trop Baye Assane waaw metti na trop ah. waaw ñu ñëw ci débat bi man daal xam naa li ma ci xam mooy man daal Barthélémy Dias li mu def man ànd naa ci ndax kenn ku ne da koy xool ci sa bopp rek képp koo xam ne nit a ngi yor ngànnaay la nga yor ngànnaay comme moom. doo koy xaar muy agsi di la faagaagal loolu moom amul sax ma dem te ñëw même moom moom mi nga xam ne moom moo koy jéem a teg ci yoon moom moo àndoon ak moom démb ku ne gis na vidéo yi loolu moom kenn nettaliwu gis ngeen vidéo yi mu dikk ne da koy jàppale waaw nan ngay nangoo mbir démb mu arrangé la tey arrangé wu la li ma nangu woon démb mënu ma koo nangu tey lii moom ku ne xam na ne képp ku mu doon yow it noonu ngay def ndax nit du yor ngànnaay jëm si ci yow ngay xoole mu lay faagaaga loolu moom lislaam sax nangu ko waxantuma laag nag maanaam ay xalaat sax loolu moom ñëpp xam nañ ko képp ku ko nangu tamit dërul yow rek ku mu yow képp ku yor ngànnaay wut si la nga mën koo faagaagal balaa agsi nga faagaagal ko loolu moom ñëpp xam nañ ko c'est que réew mi dafa amul yoon ni muy doxee nii nga xam ne réew mi nekku ci yoon beneen bi mooy moom day tàng réew mi ba mu tàng mu ne fees dem baleen fi ñi fiy bàyyi noom it ñoom ñuy dox ci ay ay atte atte yoo xam ne si la la leer ne la yow li ngay atte yaa gën a xam ne bëggoo ko lu ko atte bëggoo ko ko atte ku sës ci yow kon li ngay atte baaxut